maaleykum yéen bokk yi nga xamante ni si yéen saxoo di seetaan seen sur internet mourides point info tey nag seen reportage jàngat ñi ngi doxantu woon ba fii nga xamante ni si moo di kër kàbb te ku kër kàbb ku ne xam ne xet bon gi nga xamante ni si mi ngi fiy gille ñi nga xamante ni si fi lañ dëkk képp ku fi romb ku nekk yaa ngi koy jànkonteel waxantuma laa ñi nga xamante fi la ñuy yeewoo di ko nooyee saa su nekk ñu dugg ci biir laaj ñi nga xamante ni si fi la ñuy yeewoo xet gu bon gi naka lañ koy dundee tur beeg sant bi sëñ bi. Seexuna Diop laa tudd. waaw sëñ Seexuna Diop ñu la doon laaj fi ñu nekk nii fan la. fii kër Macoumba Kébé ñu gën koo xam ci turu kër Kabo. Hmm, kër Macoumba Kébé ñu gën koo xam ci kër Kabo. waaw ah, ñu gën koo xam ci kër Kabo ñu doon laaj yi nga xamante ni si fi ngeen nekk nii ak lii ci seen ginnaaw yan jafe-jafe ngeen di jànkonte ak moom. waaw ah, jafe-jafe boobu de moom maam daanaka bañ ko jëloo jànkonte léegi maanaam yàgg na lool ndax boo koy xool daanaka maanaam bi Ablaye Wade bàyyee réew meeg léegi maanaam biñ ko fa ubbeek daanaka jafe-jafe yooyu ci la ñuy dëkk. ndax mhm. fi mu nii fii sax da ngaa fekk nii tey maanaam mu toog ni ngelaw li xaw am fu mu jàll waaye daanaka heure ngoon boo fi toogee fi mu toll daanaka noyyi bi sax doo ko bëgg a doo ko bëgg a def reer bu jotee sax doo bëgg a mhm. ndax maanaam xet goo xam ne maanaam la yàlla xam daal doy na mhm. daanaka daal mu ne su cee daal maanaam daal lañ mën a suutle la wax wax boo xam ne daal daanaka daal xaw naa kii daal waaye bu guddi jotoon tey jii boo toogee fii soo bëggee reer wala nga bëgg a kii daanaka da nga dugg sa néeg sax boo ci duggee cuuraay sax boo ko ci taaloon daanaka doo xam loola xeetu cuuraay gi nuru daal loolu daal doy na waar lool surtout boo xoolee télé bi noonu boo jëmee Taïf wala nga jëm Xelkom gis nga ndox moom ni muy walee foofu fi mu toll nii daanaka boo ko xool leen li waar bi lay doon leen li domaine bi lay doon ndax dama ndoxum waar bi daana wal ba ñëw fii ci sama gannaaw xuroo noonu ngay seen noonu fii nii sama gannaaw dana wal ba ñëw foofu waaye jamono yi nag dafa am fu muy jaar di dugg ci tookar bi ndax tookar boobu mu dugg sax daanaka borom xañ na daa xamul nu mu leen def wala xamul lu mu leen def wax xam te ne waaye mu bàyyi leen noonu ndax daanaka liy dugg ci biir ko di ko yàqal biir sax bari na lool sakantement wet gee nga xam ne boo koy xool tali la kilifa yu baax yi dañ jaar guddi ak bëccëg noonu fi mu toll kilifa jóg jaar fi ñaari du xam sax nu muy def ñaar bu ñëwee da koy teggi fi mu toll dem seetiwaat feneen ba war na faa mën na ñëw jaar jàll ndox mi daal maanaam moom yëfi daal doyna war doyna war go xam dal fi doon dal kuñ ci mëna a dimbali maanaam yàlla fay la. mu melni li ngeen di dundu metti na torop. ci waaw waaw lolu mo metti na ci ñun. ñi nga xamante si yéen a ci gox bi est ce que amu leen ci saafara. ah ñu mu toll amuñu ci ndax parce que ba waxee ñu ni président communauté rurale bi Abdou Lahad Ka moo war a liggéey ak yoy nonu moko wara def ak yenn yooyu la wax dal ñun ñi dal dañuy layalee dal di wax manam di wax ak tek rek bo waxee tay ji ñu ne dañ ci seet manam programme bu ñu def manam ba soppi ko defaraat ko neneen wala ñu defal wala ñu seet nee na ñu ko def waaye tamit bu ñu waxee ba daaneel tamit maanaam ba ëllëgee tamit maanaam ñu def la leen neex daal dañuy wax di teg rek xanaa nag léeg-léeg nga leen defalee ba nga yaakaar ne maanaam da nga am la la neex waaye ba ëllëgee dañ koy bàyyi. mosu leen ko na fi nekk am responsable ñëw pour jàppale leen ci te ah, le responsable maanaam bu ñu ci war a mën a jàppale wala fenn fi ndóol moom gisagu ma koy wax dëgg yàlla ku ñu mel ne seen jëm ji mhm. waaw de laa fi gisagun nga xam ne maanaam yéen seen ngeen ko ba xam ne maanaam jaaduwul mhm. war ngeen ko dox seen dox war koo wax léegi tamit maanaam ñi ngeen fi fekk ñu war leen ko wax war leen ko leeral yéen de laa fi gisagoon. waaw waaw kay sant naa leen gërëm leen. Mm-hmm. xadi laa tudd sant Toob samay gone ñoo jóge fii nekk fii ci daara ji fi sëñ bi fa kër sëñ bi mm-hmm. man nag ñu ngi ma ba ca kër gu màgg fa kër sëñ Abdou Khadir mm-hmm. waaye léeg-léeg damay dikk di leen seet si waaye su ma dikkee du ma fi mën a am ñaari fan ndax xet gu naqare gi ma ne leen gii xet mag munu koo dénku mhm. ndax soo tibbee di sax sax boo wanaa soo sax xet gi day ànd ak tibbi di dem ndax loolu wóor na wala wóorut ah mhm. ñu ne ko ma jàppoo ko léegi si bu guddee duñ xam jàmm yooyu ñu bëgg a rey ànd ak xet gu bon gi ah lii lépp nekk fi mhm. ah kon nag lii ku ñu ci dimbale rek ñu jël jaaxle nañu lool nag ku ñu ci dimbale ñu ndax xet gi moom metti na lool ndax xet gu bon moom mën na andi jàngoro ju bon ju ne man naa ndi lu nekk lu bon lu ne diggante toolu dër bi sa xet gu bon sax man na koo yàq ah loolu jaaduwul ñun daal ku ñu ci dimbale daal ñu jël ñun daal jaax na nañ lool te it nit mënut ta ñàkk dem ci ay doomam waaye nag xet gi sës yi day moom man day moom lu ma na xari la moom xet gi moom metti na lool wax dëgg xale yu ndaw yi sama gora baa nga ne boot doomam ja hôpital la jëm ak moom ndax biig ne la wuñ ndax ndax ndax xet ak tàngoor yi ma ne ko génnal ci bitti mu ne ma yaay bitti bee yes bu neeg bi saxatane ñu nekk di ci wupp ak suñu xet am deet lima wax du deug wala du deug am deet wa tour beeg sante bi Amar jañ dekk Kër gab señ Amar jañ ñu fekk la fi nga xamanteni ci modi moo di mu melni ni gi ñaxtu li nga xamanteni ci moy ndox mu xey mi nga xamanteni si ngeen dekkal sa su nekk ñu leen doon laaj ba xam lan ngeen ci xalaat ñi nga xamanteni ci koy noy à chaque fois hmm, ah, ñun dal bo gisé manam wax dara sax sëñ Ahmadul Moxtaar xam nga mooy borom dëkk bi te ñun moom lañ yaakaar waaw moom nañ yaakaar sëñ Ahmadul Moxtaar daal jooytu nañ fii fu nekk ci moom jooytu nañ ci ku nekk waaye ñun mënuñu ci dara njëkkoon nañ fee ñëw ñu waxoon suñuy wax ba pare waaye mujjul daal mooy loolu waaye ndox mi ñu sonal nañu ndax dañuy indil ay feebar même suñu jur gi sax day feebar ndax dañ koy naan ginaar yi yëpp dañuy fi mu dañuy dee ndax xet gi xam nga ne su ko noyyi xam nga gone itam am na loo xam ne mu ko te ñun bu ñu waxee rek ñu wax ñu ay wax yoo xam ne daal duñ ci def dara neewoon nañ ne danañ ko saafara mais saafara wuñ ko mais jaaxle nañ ci nag moom bëgg kuñ ci dimbali ndax euh, nit ki euh, wér yaram moom mooy moo baax ndax ñun fii bi ñu fi depuis jën bi dikk feeg léegi feebar bi fi am musu fee am waaw ñu fi kiitim am nañu ci bari ñoo xam ne maanaam am nañ ay tolof tolof yoo xam ne ndox mi moo ko waral mais nit ñi duñ ko xamee wuñ ko noonu mhm. mais daal ñun sonn nañ ci te buñ sañoon ñu ñu gën ñu see gën ñu see jàppale ndax euh, nit amul lu dul wér gi yaramam mhm. waaw wante nag comme que ñun moom ay dañoo jàpp ne ay baadoola lañ amuñu kii ak yooyu waaye loolu nag yooyu dafa jeex ci réew mi léegi ndax. Mhm. fii maanaam nit boo amee lu ko jaaxal yaakaar naa buñ ko waxee fii moom mu faju njëkkoon nañ fee def lu mel comme ça nii am na ñu fi ñëwoon mm-hmm. bi ñu waxee suñuy wax te bi ñu wax bi ñu waxee dara fajuwu ci mm-hmm. waaye daal ñun sañoon am ñu ku ñu dimbali ñu ci ndox mi mm-hmm. xetu ndox mi daal bu fi jóge woon te defutuñ ñu dara sax ñu sant waaye xet son sonal nañu trop ay saqat ak ay soj ak lépp suñ gone yi fi mu toll nii genn gone wératut ndax ndox mi xam nga xet gi baaxut te guddi gi nii boo tëddee doon nelaw yooyu dañ ci jógee di ñëw di matt xale yi ak nit ñi xam nga amuñu ay sànke yooyu xam nga téewul yoo léegi léegi nag bu ñu jógee bu ñu màttee ñu indi ñu feebar wala ñu indi suñu xale feebar ñu liggéey lu ñu am daanaka dañ koy fajoo ci hôpital yi xam nga loolu amul amul sens te fii dëkk suñu Ahmadou Mokhtar la yaakaaroon nañ ne maanaam bu buñ fi bëggee saafara lii day yomb daal maay nag biñ ko dalee saafara ba léegi daa mel ne da gën a yokk mais wàññi wut ndax ñu koy def fii ñoom faaliwuñ ñu mm-hmm. demoon nañ ba naan ay oto vidange bi ñëwee manque fi benn wajaas dem dikk boo liggéey ñu génn ci xam nga dañ nit nit moom da nga naan naa naax kii boo ñëwee andi naf ab foos lañ fiy def mm-hmm. foos xam nga téewul ndox mi mm-hmm. ndox mi jógee ci ci bi ak bi jóge ci domaine bi ñoom ñooy ànd xeelu ko fi mu toll nii fii day am ay sax-sax ci biir tool sëñ bi waaw tool sëñ boo duggee ci biir nii bii day am sax fi mu toll nii garab bi yi ñu ci def yëpp garab yi day am ñoo xam ne day dee ndax sax sax yooyu mooy def dugg ci tool bi fi mu toll nii ñu fi dañ daan liggéeyee daanaka ñun liggéeyatuñ ndax mm, ndoxum jën mi boo fi nekkee doo mën a noyyi loo fi def sax yi lekk yàq xam nga loolu ci gënut waaw mais nag ñun moom kuñ ci mën a dimbali daal moom soxla nañ ko ci ndax wéeratuñ liggéeyatuñ ndax tool bii ci lañ daan liggéey di ci jariñu ay salaat ak yooyu mais loo fi def fi mu toll nii du baax waaw boo duggee ci biir plan yaa ngi nii yëpp dafa yàqu sa sax yi ñooy ñooy ruuru ci biir di ko yàqu waaw waaw jërëjëf nga wàllu salaat si mi ngi nii waaw dañuy roose ba bëgg a dee fi ñu doon ne dañoo mujj sonn bàyyi seen nga yëpp moom dafa dee ba ba seey jeex mais lii moom it gis nga ko benn plan ñaari plan ñetti plan ñeent juróom juróom benn plan yooyu yëpp seroon nii la gis nga yii noonu lay def fi mu toll nii amee ñetti fan ak ñeent boo ñëwee da ngay fekk lépp nii lay def seen nga ko nii lay def waaw nii nii lay def ba jeex gis nga loo loo loo roose roose roose dara du baax gis nga ko nii lay def gis nga gis nga salaat bi gis nga salaat bi waaw sa kani salaat bi yàqu na salaat bi tim maanaam yàqu na te fi mu doon nii fii diggante bi nii nii nii nii nii euh, juróomi palant yi ngay gis nii par mm, boo ko sampee nii jëmbat ko matul un mois moom mu ñor cinq plan yi euh, cinquante mille laa ko tuddee woon waaw moom bu paree rek cinquante mille lay doon plan dix mille dix mille dix mille dañoo sonn lu ñu liggéey mu yàqu ngir ndoxum jën mi xool nga ni muy def kii di ko euh, sax yi sax dañuy dugg ci tool bi di di yàq garab yi di ko rey muy dee gis nga ko nii dañuy dañuy roose bay bëgg a dee mais lu ñu roose mu yàqu waaw man ndax ndox mi day yàq euh, day dugg euh, day indaal ay ruur ci biir tool bi waxuma ne dara mais ni muy def suñu tool bi xoolal lii lii lii kaani salaat la mais gis nga ko nii xam nga lii lii baaxut mënutut a ñor dara gis nga ni mu dee na xool xool nga kaani salaat bi deen ni gi te yàqu na nii te lépp ndoxum jën bi moo ko sabab day day wal dugg ci biir bu ñëwee da andi fi ay sax ci biir gis nga ko nii day seen nga reen bi ni mu koy lakk muy muy ñor nii gis nga lii xam nga lii li lii yàq la xool nga doom bi ndox sax yi ñoo koy def ndox jën mi ndoxu jën mi moo koy def gis nga ni muy def doom bi waaw xaw ma ay motaar lañ ciy def xaw ma ay ay lan lañ ciy def ay gaz xaw ma mais suñ nga sax yi ni ni mel nii dañuy ñun dañuy liggéey ba bëgg a dee mais li ñuy liggéey mënatuñ ci am dara sonn nañ waaw xam nga lii nag war nañ ci mën a jàppale ndax ku toll ne sëñ Ahmadou Mokhtar di xalifa Daaru Xuddoos ah mun ko dee liggéeyal bëgg ci lu ñuy eh, ndam ci moom te munuñu ko am te gannaaw yàlla jën bi moo tax munuñoo am kandam ci sëñ bi te mun buñ sañoon liggéeyal ko mu baax mais lu ñu liggéey de yàqu gis bi waaw fi mu toll nii salade baa nga fee moom it noonu la mel kànja bi nii kànja bi moom it eh, dafa dee waaw te xam nga eh, fii dañ daan récolter di fi récolter ay ay ay ñeent fukki kaset waaw par suur waaw bu ma saan récolter ni nga xam ne dañoo pare nii dañuy récolter lu mat ay ñeen fukki cassette wala ay vingt cassette mais ñun mënatuñu am ñetti cassette yu mat xam nga ne loolu yàq la te lépp kii yee ko sabab euh, sax yi gis nga. seen reportage jàngat ñoo ngi fii ci bërëb bi nga xamante fi la ndox mu bon mi di balle génn ci abattoir bi ak domaine bi sonal ñi nga xamante si mooy dëkk bi di waa Kër Kàbb mbokki ñu topp reportage bi xool ba xam dëkk bi Touba Mbacké yelloo na ko wala déet.